voire net euh, plus clair euh, euh, Mamadou Lamine Dianté ñu ngi lay nuyu. maa ngi ñu ngi am mbégte bokk ak yow waxtaan bi alors ni ma ko waxee euh, beneen débat gannaaw débat wu euh, audience bi di nga ci ñëw mooy euh, seen candidat kan ngeen di tànn kan la Ousmane Sonko war a tànn kan moo ci gën a jekk on parle de profil bu gën a baax ñeneen gis ne le choix logique jom ay fay mi nga xam ne moom mooy candidat légitime bu PASTEF naturellement aussi bu ñuy jàppale Ousmane Sonko yëpp alors foofu tamit yéen lan mooy seen position ak rumeur de divergence yi ñuy dégg entre Cheikh Tidiane Dieye ak ak Habib Sy ak ñi bëgg ñu tànn Diomaye lan moo ci euh, dëgg vraiment. waaw euh, jërëjëf euh, kontaan naa trop ci li nga ma question bi. Hmm. waaye xam naa ne li may tontu dina jaaxal te dina jaaxal say internautes yi. Hmm. rumeur bu ñuy wax ni ak xëccoo bu am suñu diggante yàlla xam na ne man ci mbedd bi laa ko déggee yàlla xam na ne ci mbedd bi laa ko déggee xam nga. Euh, d' abord damay souligner benn affaire guléet lañu ñu def réunion mu senn mu fuité c' est la première fois. kon senn am na. depuis non depuis plus de quatre mois. d' accord ñoo def ay réunion waaye mosuñu génn ñu ne lii am na seen réunion wala amul seen réunion te c' la première fois nit ñi wax ci suñu réunion wax joo xam ne yàlla xam na ne man mi nga xam ne maa jiite réunion bi. maa convoqué réunion bi maa jiite réunion bi wax jooju musta am musta am xam nga euh, ñun lakos bu ñuy génn ñu ëpp si ñun bu ñuy génn yeewi askan wi bu ñu wax sax ne wax ne dañoo génn yeewi askan wi mais bu ñuy jógee yeewi askan wi bàyyi fa ay yeneen candidat ñu ànd ak beneen candidat boo xam ne Ousmane Sonko la tudd ñun dañoo da defoon suñu tànneef ba pare ñun ñëpp dañoo àndoon ne du ñu nekk ay candidat élection présidentielle Ousmane Sonko bi nga xam ne newoon na moom mooy candidat ci ay biir nawleem ñun ñu jàpp ne Ousmane Sonko mooy suñu candidat mooy suñu tànneef beneen tànneef amu fa ba bu may wax ak yéen nii benn candidat bu ñu am mooy Ousmane Sonko ñeneen ñi nga xam ne ñoo ngi bokk lakos te man ma mënoon bokk ci nga xam ne di jii validé nañ sama candidature yàlla xam na ne du sama coobare bopp Ousmane Sonko moo ma ne ni may wutee fiche de parenage bëgg naa yow aussi bu bés ba jotee nga dem wuti fiche de parrainage donc bu boobaa man bu ma nekkoon candidat tey du ma candidat lakos donc lakos amul droit tànn. ci suñu biir ñun parce que man bu may dem jëli sama fiche de parrainage tagguwuma leen ñi nga xam ne ñi nga ñoom nga tudd ñi dem jëli seen fiche de parrainage tagguwuñu ma ndax man ànd naa ci wala ànduma ci gannaaw man mosuñu ma laaj sama xalaat te wax ma ma wax leen ndax ànd ci wala ànduma ci awuma droit man ne damay tànn seen biir ku ko ñu ci eh, ku ku ñu waxal loolu yàlla xam ne dafa ñu tooñ. Hmm. mosuñoo mosuñoo tànn parce que amuñu droit tànn. amuñu droit tànn. kon yéen waxu leen ne Jomaay moo gën a jekk ci yenu projet bi. musuñu ko wax musuñu ko wax Lacoste mësu ko wax parce que Lacoste candidat muy muy tudd Ousmane Sonko léegi bu Ousmane Sonko bokkul amul kenn koo xam ne beneen tànneef dina la engagé ñu nekk ay candidat bu ñu tànnee seen biir ñoom loolu waru leen engagé bu leen neexee ñu ànd ci bu leen neexul duñ ci ànd ñu bu ñu sosal ñun mësuñoo wax ne diw mooy suñu candidat jusqu'à jusqu'au moment où maa ngi wax ak yéen Ousmane Sonko mooy suñu candidat. mais mais Ousmane Sonko bokkul. man man sama wàllu bopp mun naa waxal sama bopp xam naa ne bu Ousmane Sonko nekkul candidat keneen ku mu joxoñ mun naa ànd damay ànd ak eh, joxoñ bu mu def waaye duma ci yóbbaale kenn. donc débat boobu mënul am suñu biir parce que en réalité ku mu neex tey jii bu Ousmane Sonko waxee nga ànd ci bu Ousmane Sonko wax boo boo ci bu la neexee également doo ci ànd dégg donc bi ñuy wax réunion bu ñuy wax noonu yàlla xam na ne bi ñoom bu ñuy tuunaaw tuumaal noonu fekkeewul réunion bi. xeet Tidiane Dièye bu ñuy wax noonu ne dafa lank ba tëdd suuf fekkewul réunion bi hmm. kon kan moo am intérêt wax lu mel noonu. kan kan moo am intérêt pour wax mel noonu te buñ koy def kër Habib Sy lañ ko defoon Habib Sy candidat la ni ñoom est-ce que wax nañ lan la lan ma ci ci nekkoon taxawaay Habib Sy dafa ànd ak Diomaye. réunion bi réunion bi kër Habib Sy réunion bi kër Habib Sy ngeen ko defee. kër Habib Sy lañ ko defoon te waxtaan bi demul sax ci ban candidat la ñu tànn. lu ngeen doon waxtaanee. li doon waxtaanee mooy samedi la conseil constitutionnel génnee décision man bi ma toog sama kër. ma xool décision bi am loo xam ne jiixi jaaxala ma jox ma woote réunion ne nañu ñëw waxtaane décision conseil constitutionnel bi jëm ci Ousmane Sonko fa la ñu yem bi ñu waxtaanee suñu biir ku nekk sottante xalaat ñu ne ah lii kat jar na am na loo xam ne war nañ ci mën a waxtaan ak askan bi moo tax ci ëllëg si boobu dimanche la woon ci ëllëg si lënd ñu def conférence de lii la demee bu ñu waxee affaire euh, euh, candidat yi am na koo xam ne sax dafa ne léegi comme Ousmane Sonko nekkul candidat est-ce que léegi ñun duñ ko defal ay schéma pour wax ko ma ne leen loolu du suñu dëkk ñun Ousmane Sonko mooy suñu candidat bu naree du nit ñoo koy wax lan ngay kan ngay tànn hmm. bu naree tànn dañu nit ñoo koy wax ne lii ak lii danga ci war a jël compte nañ ko bàyyi mu tànn bu tànnee ku mu neex nga ànd ci ku mu neexul doo ci ànd. D'accord ji daf ba jëlee kaw j'ai pas compris fu mu jógee hmm. ak ah, kan moo ci am intérêt pour mën a euh, euh, euh, mel noonu sur la place publique d'accord ñun ñun ñoom ñëpp mun naa ne ay candidat lakos lañu waaye lakos musta initier seen candidature lakos musta musta porter seen candidature bu ñuy dem jëli seen fiche de parrainage tagguñu lakos bu ñu jële seen fiche de parrainage bu ñu déposé seen candidature au conseil constitutionnel tagguñu lakos donc lakos amul boobaa ne dafay tànn seen biir bu boobaa la soo la kos day def loo xam ne dafa jéggi ay prérogative am. d'accord léegi yow booba ba tey gisee woo ceeg Ousmane Sonko. non Ousmane Sonko xam nga euh, yaay ji ñëw na fi Dakar ñu baaganteloo ko ay fan balaa muy mën a gis doomam. Hmm. mais gis na ko ça veut dire que ça mujj na ko gis. kañ la ko gis. Euh, semaine bi passé ba mu ñibbi dañu ci bien d'accord. voilà mais à part ay ay avocat soxnaam yi rek ñoo ko mën a gis donc keneen mënu koo gis. d'accord voilà mais yàlla xam na ne saa bu naree euh, saa bu amee yóbbante ci ñun dinañ yóbbante ci ñun ñu jot ñun également bu ñu amee leneen luñ koy wax dañ koy jox dañ koy wax ki koy mën a euh, ci moom mu wax ko ko muy dégg ko mais nag dama ñoo toll ci jamono joo xam ne kenn ci ñun en tout cas man jombal jomb naa ko sama bopp li woo Ousmane Sonko ne ko léegi comme nekkoo candidat wax ma lan la ñuy def parce que xam na ne bu waxtu bi jotee moom euh, bëccëg jëlee décision bi man du ma fanaan sama ndig sama kër te te wax du xam lan la lan la jël comme décision. kon ba léegi Ousmane Sonko waxagul ci mbirum candidat bi. ah en tout ko. d'accord xam naa ne Lacoste dina continuer bi jamono jooju bu Ousmane Sonko dinañu def leen lii. ku nekk ci ñun xool lan ngay def waaye man nag mun naa wax ci sama wàllu bopp xam naa ne ko Ousmane Sonko joxoñ man dinaa ci ànd ak moom xam nga lu tax. Hmm. parce que déjà man bi ma demee seeti ko nee na ma moom bu gaa yi taxawee ne moom du bokk ba du bokk moom dafa jàpp ne projet bi moo ko féete kaw te kenn mënul tere projet bi dem c'est-à-dire que dina musa am benn candidat au moins bu mun a ànd ak Amadou Ba. Hmm. même bu waxtaanee ak moom ba nangu ne léegi moom mun na gàddu projet bi parce que loolu moo nekk moom Ousmane Sonko contrat bu mu am askanu Sénégal. bu boobaa dina wax nit ñi ne kii de moo yore projet bi bëgg naa ngeen jàppale ko ndax mu dox n'est-ce pas mhm. comme wax na ma ko ma ànd ceeg moom donc ku mu joxoñ ne kii la ndax xam ne kon projet boobu mu wax ne moo ko féete kaw moom moom la bëgg mu ñu doxal ko pour askanu Sénégal bu boobaa man dinaa ci ànd ak moom. d'accord léegi bu loolu yëpp weesoo fii ak Ousmane ko di wax ragaloo ne bu waxee benn candidat rek la mun a tànn ci lu ñu jàpp. bu dul ne day bàyyi ñett ñëpp ñu dem est-ce que ragaloo xëccoo am ci vraiment parce que ki jàll parrainage ba tey mu jege pale nekk place de l'indépendance xëy na euh, digganteem ak pale tuuti dox ci est-ce que kooku buñ ko bëggee tegee ne yaakaaroon ne dana force dem te loolu itam du ci yéen. mais jamono jii nii ñoom ñëpp dara obligé wu leen ñun bu dee ñoom dañoo bëgg a seen bopp jarul ñuy xaar Ousmane du la ñu war a pour ñu xam ndax dañuy jamono ji nii nii nii fu ñu wax naan gi ñu wax ak yéen nii. Hmm. dara obligé wu leen pour ñu nekk ak ñun bu dee dañoo bëgg a dëggal seen bopp. Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy. Hmm. ah ku ci bëgg ne da ngay dëggal sa candidature da ngay dem da ngay dem élection présidentielle que ñoom ñëpp nee nañu. Hmm. bu Ousmane Sonko nekkee candidat dañuy retiré wu. léegi Ousmane Sonko nekkul candidat kon lu ñu xaar. am déet wala kon ba tey kon ba tey docteur Cheikh Tidiane Dièye ak Habib Sy Ousmane la ñuy déglu ba tey ji waaw mais donc je suppose que moom la ñuy déglu. léegi nag bu ñu toogee fii di ko déglu. mais keroog mu jël décision. mu doo euh, su euh, Cheikh Habib Sy ak ak Cheikh Tidiane Dièye am kon kenn lay tànn ci ñoom ak jomaay léegi nag man mënu ma toog di déglu Ousmane Sonko. mais keroog bu jëlee décision ma xam ne man tànnu ma ma bëgg génn. c'est pas pertinent man jamono jii nii nii nii nii laa jël sama responsabilité ne man dem naa. voilà donc c'est ça qui est pertinent Ousmane Sonko bu nekkee candidat man du ma nekk candidat léegi euh, yàlla def na Ousmane Sonko du candidat looy xaarati léegi nag mënoo xaar di espérer mu tànn la jamono bu la tànnul nga génn wax ak nit ñi ne waaye man dama yaakaar du man lay tànn mais comme tànnu ma damay dëggal sa bopp te ngaa dëggal sa bopp déjà mhm. comme ça nga may nit ñi nga nëppal nit ñi mhm. mais boo toogee di ko xaar rek ñun dañoo jàpp ne bépp décision bu mu jël yoon ci ànd d'accord voilà d'accord leer na kon jàpp nga ne bu Ousmane Sonko tànnee euh, Diomaye wala mu tànn Habib Sy wala mu tànn Cheikh Tidiane Dièye ñi ci des ñëpp dañuy retirer seen candidature désister euh, euh, daal di ànd ci kii Sonko tànn yow loolu nga yaakaar ne moo nar am. mun naa mun naa bañ wax li ma yaakaar ne ma wax leen man bu ma nekkoon seen place. d'accord xam nga gore. Mm-hmm. muy nit. man nee la bi may dem jëli fiche de parrainage Ousmane Sonko mu ma ne jëli fiche de parrainage ni man. te xam naa bu boobaa boobaa xam naa ne ñun ñi ñëpp ñu nekk tey ay candidat bu mm-hmm. ma leen dem la jële fii de parrainage benn mm-hmm. ñaareel bi am na ci koo xam ne moo ko jox ay député mu nekk candidat am na ci koo xam ne jàppale na ko pour mu nag euh, am parrainage pour mu dem yóbbu au niveau du conseil constitutionnel mm-hmm. donc mun naa wax ne ñoom seen candidature Ousmane Sonko moo ko tabax ak ci loxoom bi mu antu comprendre nga waaw leer na bu ma naree nekk candidat man naa ne Ousmane Sonko man de yaa ma ne woon ma wuti sama fii de parrainage yaa ma ne yaa ma mayoon parrainage yaa ma yaa tax ma déposé fii de euh, sama candidature léegi nee nañu man sama candidature validé na yow sa candidature validé wul jàppoon naa ne yow boo nekkoon candidat man du ma nekk candidat yàlla def na tey jii man may candidat yow doo candidat jërëjëfati Ousmane Sonko léegi bàyyi ma man ma dem wuti xam nga. Hmm. wala lépp lu ma mën a tànce ak moom. parce que mënoo ko gis waaye mën nga yónnee ci moom te mën nga jot li mu la li mu la tontu. Mhm. mais nañu def loolu comme ça ñu mën a xam lu ñuy def. mais bu ñu sos bu ñu dugal nit ñi. Lacoste bu ma leen jiitee man. foo yaakaar ne fa la wax ji jógee. non non xaw ma yàlla xam na ne xaw ma bu mhm. waa ji yow waa si boppam lay interpellé. d' accord mais bi léegi xaw ma fan la wax ji jógee. d' accord sorte que man daal vraiment tooñ lay bañ. Mhm. léegi nag mën man Ousmane Sonko bu ma defal loolu bu dee man la. bos bu joxoñee keneen ku dul man yàlla xam na ne bu doon Amadou Ba la sax ma topp ko hmm. ndax kóllëre bu dox sama diggante hmm. ak leer na alors coowal euh, collectif des recalés Sonko président amoon na ci benn représentant mais euh, yéen dafa mel ni rocceeku ngeen à travers Ousmane Sonko bien sûr ca lettre ba bañ bindoon président Macky Sall ça veut dire que yéen waxum audience bi itam concerné wu leen bokk leen ci Ousmane Sonko day li mu wax Sénégalais leer na dafa jékki-jékki rek ñu ne ko am na lettre boo xam ne moom tudd nañ ko ci mu ne kenn waru koo tudd ci lettre boo xam ne buñ ñu koy bind yëgu ko bi ñu koy bind laaj ñu ko xalaatam jàpp na ne jamono ji processus électoral bi euh, Macky Sall amul lenn loo xam ne mun na ko ci mun na ko ci def jamono ji lépp mu ngi ci loxo conseil constitutionnel kon bu ko kenn boole ci lettre bi xam nga ñun ñii ñoo doon wax ne séparation des pouvoirs noo nekk ci jamono yi nga xam ne euh, Macky Sall li ko def réew mi matul sax ñaari weer nga ñëw dem ci moom naan da ngay waxtaan ak moom ci lan yëpp Sénégal sax dina pas besoin nga waxtaan ak Macky Sall te nga toog euh, muñ xaar keneen koo xam ne mooy wutu Macky Sall nga xam ne juróomi atlam hmm. pour doxal Sénégal benn ñaareel bi mooy. bu dee collectif des euh, candidats euh, spoliés la ñu wax man bi ma li ma yëg mooy quarante et un la ñu maanaam ñeenti fukk ak benn la ñu hmm. ñu war a dem tey conseil euh, seeti Macky Sall bi ma gisee seen lim bi fukk ak juróom la ñu ci ñoo xam ne sax sénégalais yi ci ëpp xamuñu leen xamuñu leen hmm. nee nañu ay candidat lañu man mii nga xam ne maa ngi ci espace public bi liir naa ci am na ci juróom benn wala juróom ñaar yoo xam ne xaw ma leen donc ñooñu buñ na naree seeti Macky Sall tuuti nañu pour wax ne report dina am wala report du am li ma jàpp man li ma jàpp man Mamadou Lamine Diante Macky Sall xam na ne ñii bëggoon nañ nekk candidat ñu lajj mu wutal mbërëm benn benn benn benn affichage mm-hmm. xam naa daf lay waxtaan ak ñoom ne leen kaay leen jàppale sama candidat bi. alliance lay bëgg. waaw dafay wut ñoo xam ne dañuy jàpp dañuy jàppale candidat ñu def affichage bi. préparé seen hold boo xam ne mënul jàll xam nga seen hold-up bi fan la commencé. Hmm. mooy bu ñu waxee sénégalais yi ne ñoom am nañu quatre millions de pare. Hmm. loolu ay kàcc kese la. ndaxte bu ñu amoon quatre millions de pare duñ doon ragale dem euh, parrainage citoyen. Hmm. mais boo gisee demuñu parrainage citoyen c'est parce que en réalité amuñu lim doy. parce que bu ñu amee quatre millions de pare ñu am modalité e boo xam ne ku ci pare ne kenn mënoo pare ne keneen. moom mooy que Euh, bu boobaa bu ñu waxee loolu sénégalais gëm ko moom mooy quatre millions d'électeurs la ñu am te loolu mënul nekk mënul mhm. nekk mbëram bi bu demoon élection yàlla tere bu ñu naroon am deux tours parce que man dama jàpp ne ba un tour euh, premier tour rek lay lay yem mhm. bu ñu naroon dem deux tours mhm. deuxième tour waa ji du qualifié deuxième tour donc tey jii ay maquillage lañ bëgg a def wutal ko ay ay nit ñoo xam ne quinze candidats à présidentielle ñoom ñoo koy soutenir waaye quinze quinze quinze candidatures yi nee naa la man mi nekk dans l' espace public am na ci juróom-benn wala juróom-ñaar yoo xam ne xaw ma leen <laughs> kon ñooñu ku ñu représenté à part seen bopp xam nga il faudrait que à un certain moment ñoom boo nekkoon caaxaankat nga bàyyi caaxaan te lii li ñuy def nii caaxaan kese la parce que Macky Sall mënulatul lenn lenn lenn lenn ci processus électoral xam nga yenn yenn la ñu yàlla musal ci loolu lenn rek moo mën a tax. élection ñu reporté ko mooy ñoo xam ne validé nañ seen candidature ba ñuy préparé campagne électorale mm. am ku ci faatu fii ak le février mm. loolu nag yàlla nañ ci yàlla musal amiin parce que sénégalais yi euh, dañoo décidé ne ñoom seen contrat ak Macky Sall mm. le vingt cinq février lay yem kenn du ko pousse bu ko defoon le vingt six sax nit ñi ko du yoon mm-hmm. wala nit ñi février boobu dara mënu koo changé tey d'accord leer na jërëjëf Mamadou Lamine Dianté ñu ngi lay gërëm gërëm également say internautes yi ak sa téléspectateur